شهدت أن الله رب واحد وليس يملك li wa salaat bi Mustafa mimman huwa al-khalifatu al-rafi tey siyaare ci turu mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ñëw tey doon saytu nataal yi ñu wax ne sëriñ bi la te buñ ko saytoo it mu nuru ko lool euh, fi ñuy tàmbalee nag mooy ndokkeel la ci weer yu nekk mu weeru koor gi nga dimbalu ni ci itam lool ci jotaay bi nga xam ne yaa ko feeñal muy al mashrabu saafi min al manbai shaafi te kenn ku nekk ci ñun ñi fay ñëw xam na ne ba mu ci tàmbalee ñëw ak léegi wute nag ba mu ci ba mu ci dala wute ñëw ci njëriñul bi biti kon loolu mbooloom mépp ak yoon wépp ak jullit ñi bëgg lu baax lépp ñu ngi ñoo la ci sant di ñaan mu yàgg di topp ci ndokkeel gi mooy jàngukaay bu mag bii nga xam ne ndigalu sëñ bee woon mel na dañ la ko dencaloon mu defal la ci taw fexit lool li nga ci yéene lépp yàlla na yegg ba nga naal yeneen teggale ko te naan ko yow di la sant ci jiitu gi nga jiitu sunu kanam di nu wan nin war a ànd ak bi bokk na ci say wax liggéey bu mooy ilaau kalimatillahi al-ulya bokk na ci itam bu laal suuf bu mu suuf nag soññi na sama maas lool kon noppalu jeex na nelaw jeex na man mi nga xam ne dama bindoo tayel dimbalee nga ma bu may nelaw du ko def xel dal ma loolu yaa ma ko dimbale ngir kii nu àndal musta noppal musta toog kon wan nga nu ne ginnaaw dana topp ci gannaawam liggéey bii mu fi bàyyi bu warunoo seeraan ba mu laal suuf ku yor lu wërta laal suuf nag waxuma ne la waaye jax jeexu sax waru la kon dimbali nga nu bu baax bun bu bu doyee de ba di ko defit ko defee xel mu dal te loolu yaa nu ko yaa nu ko yaa nu ci dimbali jërëjëf yàlla na yàgg loolu Mbacke léegi nag liggéey bi euh, mi ngi nii def nañ ci ay gëstu yu bari ngir ngir ngir di wóor li di wóor li rek bokk na ci cëslaa yi ñu def ne yi tax ñu ñu jàpp ne mooma waxi Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi nga xam fekke woon na jotaay dafa wax ne wa kaana yowma al ithnain dahwatan ubtudia fi l bina nazala cheikhu fi xufrati l qubba te nuru na ko ndax daa mel ni fi mu nekk moo gën a suufe fa lañ ñële fañ taxaw ci kaw waaw maanaam waaw indi ko maanaam fële la gën a feeñe wala bii sa ginnaaw si waaw waaw ndax daa mel ne daa mel ne ñële ci kaw ñoo tiim fi mu nekk ci sayir waaw kon mandarga wu ci nekkoon waaw fee daa mel moo gën a kawe fii waaw mu ne waaw daa mel ne dañoo ne dañoo fu gën a kawe fi fi saayir fi sëñ bi waaw waaw mu teg ci ne wa cheikhu muxtaar bint almadkour bi janibihi wa bi yadihi inaau tiin wa axada cheikhu alat albina almalaj waaw moom la téye noonu wa axada min attiin وبسمل ووضع ثم أخذ حجرا ووضعه على الطين foofu it am na fu mu fee ñëwaat dafa na waaye daanaka mën na bii mën na ko yóbbaale ثم أخذ المعول وبسمل وضرب على الحجر ثم تلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ثم تنحى عن محله وصلى ركعتين te ndax xaamaal yi mel na ne kon jóge na fii dem fee wasalla rakaatay ni kon wadaa wadaa danga mooy mujj ba la xam naa mooy taay la wala wala ñaan daal mooy moo tax ñu mujj ko mooy foto bee ci gannaaw loolu loolu la daanee la wax ji <laughs> loolu nag teewut def defoon nañ ci yeneen gëstu yoo xam ne ci taxawaayu ñoom si Abdou Aziz mi la tuddee woon seen bopp diwaanul maarif def nañ ci ay ay ay jàngat yu bëree bëri ci méngale melokaan yi nettali ci moom ak liñ gis ci kaw nataal yi ba mel na ni lépp ànd na kon daal bu fi ne liñ jàpp mooy sëriñ ku baax ku baax kee ñoom ñi ñu taxaw ci bu rafet di ko doon la doon la jëbal lépp eh, tawfeex ji nag mooy li mu dajeeg ngay sëñ Touba tamat ko sëkk kon loolu ca dafa jël sëñ bi yow la ko defal xam naa li ci des ci leeral kon mbokk yi daañu ci ñëw incha allah. ndax ñoo ngi siyaare bu baax ñoo ngi siyaare ngeen nga te di siyaar. leen ñaanal ngeen yàgg fi te wér ndax seen yàgg fi mooy sunu njariñ it mooy sunu sunu ndimbal eh, noo ngi sant bu baax a baax sunu teewaay fii ci seen kanam mel na ne suñu girug dundu mu ne su am lu raw lii ngir dab seen mbég ndax seen mbég mooy mbegum sëriñ bi te lii kat ni ko sëriñ Chérif waxee daa bokk ci jagle yi nga xam ne sëriñ bi da leen ko jagleel loolu nag di di ndamal lislaam di ndamal yoonu murit di ndamal àdduna day day sofu rek ci ndam yu rëy yi nga xam ne feeñ na di université bu mag bi bi nga xam ne mooy tabax muriti suba julliti suba sénégalais suba yi nga xam ne ñoo war a dimbali jamono di jumaay masakal masalikal jumaan ju mag jooju nekk ndakaaru di firndeel seen taxawaay rek ndax booy xool photo bi ci waxtu wi mu amee daa dëppook waxtu wi ndax daa amee woon ci jamonoy guerre première guerre mondiale amee ci jamonoy mbas ñaari mbas sax jamonoy peste ak li tubaab di tudde grippe espagnole sëriñ bi doxi ci doxin wii te ñu ko doon nettali di jàng sëñ Modou Lamine Diop Dagana mu feeñale ko ci yéen loolu nag ak cant la te doxin woow yi kat mel na ne dafa dëppook doxin wii ndax ci seeni dogal mel na ne ab docteur la ci seen ndimbal boole woon ngeen ma ci kuréel bi nga xam ne mooy saytu mbas mi ci mil 2020 waaye na ngeen ci doxe arab di ko tudde sumuud bu doon baati tubaab ñu naan résilience adduna sépp yéemu nan jumaay tubaab musta tëju màggaluk sëriñ tubaa ngi jëfe ko mu raw fuuf nañ ko daan defee te it dara xewul loolu ñun docteur yi la njëkk a jaaxal waaye ndax lii a taxoon kat yéenay moom donc bu ñu amee tawféex dajeek moom xanaa li baat wolof di wax naan ëpp ñu yeesuñu te cet jàppuñu ndax jamonoon te ñoo ngi yéen dimbali ngi ñu ci jariñu nañu ci yëf yi nag wóor na ma làqub sëriñ bi la ak ab dencam euh, xam naa day dugg ci ca baat ak ak ak la ma waxoon yelli sëy rek ca jumaay bantam ja ku waxoon yelli sëy walla commandant ba ba yàqoon jumaa ja bant ya na xeer tegu wii dinañ dem ba réewi nasaraan yi ay taalibey Sëriñ Tuubaa bëgg ko di ko xeeñtu di ko topp ba man koo faggoo lu ëpp la ñu tabaxe jumaay njaareem ci ci netaal bi rek te waaye loolu amul njëkkat ndax sëriñ bi moom amul njëkk waaye seen dimbala ay muriti murit jaar nañu fi ay julliti jullit jaar nañu fi waaye tiw feex jii nga nu defal ba ñu daje gi yéen mu feeñale ko nii ma ko feeñale nekkoon ci album Jean Joffre nga xam ne moo doon architecte jumaa ji moom ba muy faatu 1939 la faatu waaye bagages yi ñu koy donnante di ko donnante di ko donnante ba ci jamono ji seen jamono ju neex ji mu dëppook jamono joojee mu feeñale ko nim ko feeñale bi mu ko génnee ci internet bi murid yi ak seen xër daal di koy daw song mu tiit ndax loolu mosu koo gis moom bam koy jaay ci internet bi 3000 francs ñetti ñetti téeméer juróom benn téeméer la ko doon jaayee bañ ko ci fayee mu ne lii mënta ne daal di génn daw saytuwaat li mu yor jox ko maison de vente maanaam këru njaay gi nga xam ne France moo gën a kawe ñooña booy jël biñ koy jaay bis booba ay téeméeri téeméeri photo waaye photo sëriñ bi dañ jël teg ca kanam mooy ber ko sëriñ bi ber ber bi ko yàlla ber ak fes gi mu fes bis booba mbake ca buum ga ay naara ci nekkoon ak yeneen i xeet ndax sëñ Tuubaa ñëpp ko bëgg waaye ci seen ndimbal ak seen tawféex mu dajeeg téeméeri at ak juróom ba ñu jëlee portale bi ba noppi dëppoog 11 mars 1918 njaay mi 8 mars la woon murit yëpp nosu àndandoo takkatoo kenn xàmmeewul ak kenn li ñu bëggoon rek mooy mooy jotaay bi sa mbékk rek lañ ci doon sàkku bàyyiwuñ kenn sëriñ sërif jiite ko cim xel ci xalaat ci jëf ci dox ci wax ñu jox ko ceeg sëñ bas moom it mu nangu ko dimbali ñu ci te jàppale ci sëñ ab Abdou Lahad Gaynde ma boole ñoo eneen murit yi nga xam ne xamante woon ndax ñu xamante sëñ Moussa Mbacke sa mos bi mu ko bi mu déggee ne loolu am na moom demoon na bay bay bay jënd waaye comme murit yee jënd mu ne li ma jël laay jël tab bi ci ñun ñu nekk benn say te booloo ñoom jëwdin alaaji mbàkk yu fay fédération murit bi nga xam ne ñoo nekk France sa muritu bopp yi takkatoo jëwrin sëñ Bamba Thiam ñoom Idrissa Dia sëñ Kanji Ibrahima ñëpp daal di booloo sëñ Xaadim Guèye li ngeen di xewal sëñ Fàllu Mbàkke ma nga woon Lyon dëkk ak waa ji doon naxtaan ak moom di waxtaan ngir mën cee jot Moustapha Sow daal di ciy tabbi Pape Birane Dieng sama rakk dëkk lëkkaloog ambassadeur ba ne France alaaji Maguette Sey sab taalube mu dox ci doxin wu am solo daal di ko yenu ba bis bañ koy indi keroog biir France ca ambassade ba consul yi Sénégal am foofu fépp dañoo ñëw mooy bu Marseille bu Lyon bu Bordeaux ak bu Paris ànd ak ambassadeur Sénégal ba nekk UNESCO ak mbooleem ambassadeur yi nekk France bu Arabie Saoudite bu marok bu Tunisie ministre de la culture ndax xam dayab sëriñ bi biñ ko jotee ba noppi ak ak recteur u jumaay Paris di nit ku baax wax fa wax ju am solo ndax bi mu xoolee photo bi mu mu muñum sëriñ mi reem reem ju neex ji dañu fàttali sa sa jos ji mbàkke yaa neexi ree yéen rekk dimbali jamono nee na ree ji ak muuñ gi mooy leeral jamono mbàkke yàgg leen fi rek sa muritu bopp yaa ngi li nu bëgg rek mooy sàkku sa mbég ndax biñ ko jotee dañ koo saytuwaat boole kook eh, eh, jàngkat yu gën a mag ci wàllu woowu ba ñu bind ab rapport ne amul jiixi jaaxa amul sikki sàkk ci seeni paramètres bind nañ ko mu nekk libre bu mag mi ngi ci biir waaw ñu indi ko lépp ngir jëbbal si la ko lenn rek lañ ciy sàkku mooy sa meemoon lu bopp la di ci sàkku sa mbég wukuñu wutuñu ci lenn yàlla ngeen fi yàgg te gën a wér bi yëf yi mu génnee sur internet sëñ Sérif bi nga koy wax sëñ Abdou Aziz Mbacke mi moom de mu dafa def diwaan bi nga xam ne ñoo ko doon saytu lépp li ci war a am ak xam-xam bi ak dugalante bi génn bi lépp ñu bind ko ci rapport ci loolu lañ mooy cislaay li nga xam ne ci lañ sikkalu ngeen koo xam boobu ba léegi nag bàyyiwul ci ci ci ci wane yeeg foto yeeg defar beeg moom daal Mbacke sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax waaw waaw jërëjëf. lépp lépp lépp lépp lépp dellu ngeen ko sëriñ bi. kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax alhamdulilah rabbil alamin waaw nii rek la hmm. waaw moom day da ngeen dégg sëriñ bi rek waaw da ngeen ko dégg sëriñ bi moom. ah doy na waar. waaw waaw waaw waaw moom day moom day moom day waaye man maa dellu sax ñu ne ma ko daa waxee rek sëriñ bi am na boo xam ne dama wax ne soññ soññ na gaay yàlla yëpp man maa ko wax soññ na gaay yàlla yëpp loolu sama mas naa ko wax. mas naa moo wax it ne sëriñ bi ñiwul kenn ci borom loolu mas ah, ci biir loolu itam sëriñ bi gaay yàlla yëpp jox nañu seen àq te ko ba ci suuf eh, damay wax ne sëriñ bi moom laa jëkk a wax ne sëriñ bi xajju boromam ndax ma ne su ko ñàkk wutal tur te du yonent du malaayka waaye nag xajju boromam xaj nag man naa xam ba xam ngeen gën koo gën xam muy xaj sëñ bi xaj boromam la moom rek lañ ko mën a tudde xaj ji nag yéemul fenn ndax mel na ne ke ko xejjal yéemelu ko fenn ci boppam waaw sëriñ bi foofu la nekk ñëwul kenn ci boromam waaye dañu ko siqal ñëpp yi jox nañ leen si dàq ba ma sëkk ba ñoom ñëpp yéene nañ ko cëram man foofu laay xool sëriñ bi foofu laa ko digg itam te mooy dëgg ci man kon nag alhamdulilahi rabbi ndokk ak ndokke noonu ñu amee tawfeex ju tol ne suñu doom bindu nu boole nag sëriñ bi foofu la tawfeex mën na yem kon nag ñun sant rek moo nu war alhamdulilahi rabil alamina seen taxawaay ci nan war a nan war a yëgee sëriñ bi feeñal ngeen ko taxawaay yu mat na ko jërë ngeen jëf ah, sëriñ bi dinaa di wax itam nag eh, faw mu feeñ faw mu feeñ ci adduna bi xaw ma mu feeñee waaye faw mu feeñ mënut a lu xaj lu fi xaj rek ci ci xam ne sëriñ bi dana dana feeñ na ci des nag bis ba rek lañ ko xam na ko waxee am na ay may yoo xam ne bis ba rek lañ ko xam kon nag fa tabarakallah sant nañ sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax yéen ngeen gën a sant yàlla bu baax nag ak jéego yooyu ngeen doon seqi ak xalaat yooyu ak yitte yooyu daje yooyu ba ci jataay bi ah lu rëy lu am solo la lu am solo la lu mën a dundal ruu la kon nan nan sant leen tan sant leen yéen ñi nga xam ne yéen ñi ngi doon yéen yëngu ci loolu ba ci jotaay bii da ngeen sant bu baax nu nu nit nu sant leen ànd ko yéen jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf loolu rek lañ ci mën a sànni ci kàddu yoo xam ne yàlla may nu kàttan mën ko wax waaye sëriñ bi du koo xam ne mas na ko waxtaan sëriñ bi du koo xam ne mas na ko waxtaan foog ko boromam toll foog ko boromam toll ah néew na kumpa ko borom toll xaw ma ci dara de waaye néew néew te loolu rek moo ci am solo nag loolu dong nag moo ci am solo moom la xam yàlla rek fi ne mu jox mu mu mu jox ko ci mu jox ko la mu ko war a jox yëpp lépp dara. nam ko koon mu jox ko nam ko war a jox lépp jox ko nam ko ko war a joxee dese loolu dara boppam lépp jox na ko borom waaw dénk la ko dénk la ko usnaale yi nag jox ko suñu sumi kërub asda gi ñuy gi ñuy defal asda yi ñu wut barab boo xam ne dañ koy tàmbalee loolu ñu loolu ñu ngeen di mise ak ñu tàmbalee ko il faut wut barab boo xam ne dañ koy tàmbalee musée dañ def ko yi def fa yii ab tàmbale lay doon rek dana yëngutu ci moom rek ndax na mën koo dund jërëjëf dunde ko nag mooy texe gu béel texe gu béel bu yëngu